man damay sëy jaboot ak sama borom kër mais dama nekk moom ci ay xar-xar yoo xam ne foo ko natt na weesu na sama waajur bu góor bu jigéen dañoo wàññee su ma ko ñaanee mun a amul su ma ko tàggu bu seet samay bokk mun na koo léegi bi loolu amee waxtaan koo xam ne presque njëkk la ci bi mu yem waxtaan moom mun a ma waaw ndeke da dem na ci benn marabu expliqué ko sama kaay bi may sama borom kër yëpp

mais ah, bi mu sëyee suñu gaa yi de ah sax sax li ngay dund yëpp xam naa ko mën naa la wax man man damaa fekk man dama ma la mu ma léegi muy teg benn matelas benn mergan bi bu wow ko sax mu ne ma léegi da ngay da mooy jox sa euh, wewu joxoñ karawu ko xataan sa karawu bopp suuf waaye sa suuf man koy dagg mu ne ko ah loolu dama mënu ma ko wat sama kër après mu ñëwaat mu ma téye ndax li koy defee dama li ma sa kanam ci laa koy def mais ma ko xoolee ba gis ne bu tekkee ñooru caay bi mu yolo ma xam ne kii su ma a ko xaaral ma daa di jóg ma fooje xaaral ma daa di taxaw ma ko yow koo fay fay ma dugg waaye bu dee man rek doo ko am daal di a def. parce que man rakkam bu mbokkal baag moo ñëw si man barki démb yemb si. dunia mala mamu de rek feba amul nak lay ma tak nak laaj na ko nangu nga dal nangu ma wax nangu ma ma di ko enquête nangu ma wax ba kamu sangu ji nee na mu dugal loxom ci saagam gis même sango bu mulat mu nag mu ne ko waaye dama laa nam ma mu ne ko ne maa moo tax ma seet si la nee na mu daal ne ko yow test bi si faat pour lan la nee na mu ne ko dama ñaan ngir yàlla bu suturaat sama jëkkër nekk dama amoon benn na ko faj mais bu na ñu daal ko commencé koy mocceel léegi nag bi daal na mu sex ko di ko naan nee na ci wéen bi xëcc bi a xëcc pour mu génn na moom ci la gëjee xam daal la moo al fitnatu ashaddu min xatli fitna moo gën a metti xam nga mantu fitna mooy nga takk nit di jël sondeel wala nga jël dara di ko ñaas gis nga ni méttee mhm. looloo gën a métti dee mhm. am na ñoo xamante ni dund bi ni dund ak ñoom moo raw takk moo raw fitnaal mais ñi ëpp ñi muy dal mooy góor ñi nga xamante ni amuñu kàddu ci seen kër njaga mhm. góor ñi ëpp ñuy fitnaal seen ay soxna ci kër mooy góor ñi faible góor ñoo xamante ni euh, mën na noo mën na noo mën na noo am doom ak seen soxna waaye problème ngénte la na am euh, c'est euh, <laughs> njëkkee yaay ngénte njëkke ya njëkke ya ñooy ngénte parce que ñoom wa ñoo yor baatu kër ga bu ñé la sa way la nga xalaat ah, dañ dañ koy def nangam wala dañuy misi nga ne xaarama laaj sama mag bu jigen wala xaarama laaj sama raq bu jigen mm-hmm. gis nga nit ñi guñu ba tay personnalité ak teranga personnalité ak daraja mm-hmm. gis nga euh, li arab li arab ni kamaatu diinu tuddaanu dafa am baat yo xamni mantu même bo jangul dañ koy yag di ko dégg la taqribo Mm-hmm. zina mm-hmm. tey jii ku jàngul xam na ko ah, parce que dafa yàgg ci baat yi euh, bi tamit kama tuddiinu tuddaanu li nga leb la rek lan lay fay mm-hmm. gis nga euh, li gën a metti nga sëy kër baadoo la mm. njaga li gën a metti ci àdduna mooy nit ku sëy kër baadoo la gis nga boo sëyee kër baadoo 5 ans ngay daw ci seen ñat ñabal 6e année bi bis bu waji amé benen jabar jo xamanteni euh mu ngi liggéey benn place bu la xawatané a tuuti ba koor dugg ba ndaw sos def benn teraanga lu mës a def ci kër gi faté nañ ko. faté nañ ko lo mës a lay wonal la ginnaw garu yi commencé tomber xam nga garu yi fi mi commencé heure ndogu. heure ndogu taj musuñu ñoo wa wa waaw waaw waaw waaw fekk xoolal moo namuur yeeg chéri yow laay bégee lalu na bataay mais gisatu ñu ko jamono ji nak mo ci rawati xam nga jamono ji njëkkati sax estati amul sax xol bi du xëtt mais jamono ji dañ koy estati di la wan ni ki kii kii moo fi ne gis nga jigen say yi ñëw ñu ak ko na dem waxtaan ak ko fi ñëk deug la lu xew ci nangam mm-hmm. amna na kër yoo xamante gis nga njaga nit ñi faaw ñu xamni ni mbëggeel yi benn bu ne dafa am place yaay dafa am place bu mu am mbëggeel parce que néew na bàyyi gaa dañu dugg ci sëy mais bàyyi bu dugg ci sëy di ñox ñoxal sax moo xaw a tane tuuti yaay yaay dafa am place mbëggeel ci doom mhm. mooy yaay ah fii layam parce que yaay nanu bàyyi xel ne xelam du mus a euh, xolam du ci doom yaay parce que rêve bi mooy ay njaga de li may daj ci moom bis bu màggee wallaay dina ma fompal sama rangooñ problème bi mooy njaga fi mu commencé di jug di daanu fa la yàlla naan soxna jot na ci moom la mu mhm. jot a faraatu day séddale yaay ak soxna mhm. wala déet lu muy defal soxna lay defal ak yaay tuuti tuuti ay doom dañuy tegaloo mm-hmm. yaay bu doon am juróom faw yaay comprendre xam ne ñett lay am ndax mm-hmm. dund na ci teraanga bàyyi faw yaay di xam loolu léegi problème bi mooy euh, waa ji bu xawee faible tuuti njëkke yi ci biir kër gi bu amee njëkke bu baadool ak njëkke bu bari wax rek fay sey day am problème dëgg la njëg a góor bu naray samp kër dafa war a yor nopp gar mi dëgg la du dañ lay woo téléphone rek nga woo sa soxna attaqué ko mais sa soxna da ko jëlee kër baayam dëgg la ah mu nekk sa nawle mm-hmm. nga nga nga mu bàyyi ay góoram bàyyi ay jigéenam ñëw ci sa kër même boo dugg sa yaay attaqué la sa soxna nangam nangam nangam nangam doo réa doo ci saasi dëgg la parce la soxna mm-hmm. da koy xëcc ci biir néeg dëgg la da déglu sa yaay yaay parce que alquran nee na waxfid lahuma janaxa zulli mina rahma waxul rabbi ah, rabbi fir rabbi irhamhuma kama rabbayaani saxira yàlla dafa ni sa ñaari wayjur boo wax ak ñoom bu sa sa yaay dugg ci kër gi maa tàkkee njaga mhm. dafa teg gis nga li yonent bi ne woon mantu lay sa sadidu bi sran innama na jàmbaar du ku gaaw a dóor mhm. ñu kuy jàmbaar mu ni jàmbaar du ku yëkkati poids dënn bi génn ñu neenent bi kan moy jambar mu ni moy ki am maîtrise sa yu mere nee na ki am maîtrise jaaxal nako lol lol lol man yamliku moy ki am maîtrise man yamliku moy ki té nafsahu bopam inda al bi sa yu mere bi saa yi woo téléphone say say say rakk yu jigen waaw sama yaay le xët lu sa yaay def ban xët ko benn jigéen jaga benn jigéen bu xeexee ñetti jigen lim lay wax mo gëna graw te do ko xët wala ben jigen bobu mom duma ci ànd moom sa jabar bu xexé ak sa yaay xeexee ñaari ñëkke defal tek tok am na cause bu dox ci diggante bi parce que jigéen lu mu ñeme ñeme ñeme mënu xeex ak ay nawleem est-ce que yaa ngi dégg. Mhm. tey benn benn faw ñu def benn affaire faw faw faw ñu def benn affaire mooy woo nañu waaj. Mhm. sa soxna nangam nangam nangam nangam xam nga nu waaj war a def. Mhm. dafa war a egsi ci kër gi dugg néeg yaayam yaay lu xew. jaga góor bu duggee vitesse ak yaayam yaay lan moo xew yaay. Hmm? neexal ko. sa soxna kay mooy génn kër gi mbaam a génn kër gi nangam nangam. nangam waaw da ngay tànn maag moom kenn maag génn kër gi xam ne yaay moom kenn mënu koo tànn. kenn mënu koo tànn walaay dëgg la njàng stratégie la. nga raam ba tolloog sa yaay téye ñaari loxoom yaay bu ma juddoon manqué yëpp mënu ma xool mënu ma wax mënu maa dox sama gémmiñ di sotteeku yaay ndax bu boobaa yow rek doo ma jariñoo te boobaa ci yow lay gën a metti ndax duma la mënal dara. am na yaay yooyu saful de. xaaral théorie gi ngay wax nii wax wax waaye njaga bu mel ni ciment dangote. waaw nga bàyyi ko fa nank foofu laay waxee. Mhm. dugg ni sa soxna attention nag de. njaga gis nga alxuraan du dalay daan si diggante wayjur ak doom rek wayjur lu ko deex rek attention da nga ko ci fekki nga jug seeti sa soxna góor day laaj soxna mais loo jotee ak sama yaay ba ma ñëw ci kër gi mais yow doomi jaambur lañ la may bi ngeen baal ci kàddu bi ba nga koy doxaane da daan neexal bi nga daan dugg nag am na góor ñoo xam ne bu ñu dooylee àdduna bu tukki la sa baay la ñuy njëkk a kersa sa yaay la njëkk a ñàkk kersa sa mag bu la a ko de gis nga góor bu génnee ci biti ba gis beneen jigéen. gis nga bu doyalee soxnaan salte jabar ji lay njëkk a bàyyi xel. waaw fexe nag ba ay rakam yu jigéen mu branché leen. ci soxna si ak réewande nga. waaw fexe ba ay rakam si. di leen woo ci suuf message di leen def leen ko nangam fexe leen mu génn kër gi dégage de responsabilité déggoo bés bu ne ma indil la aaya boobu njaga yàlla segam nit a mën a fonk kàddoom fan yi rek ci politique bi segam ay nit la ñuy vaar seen waxi daaw ak seen waxi ren waaw asutuma laak yàlla mi nga xamne ne jomb na ko def loolu fa inna allaha la yahdi kaydal kha'inin yàlla du jubal pexe wor kat régler leen ñëpp ko wara a dégg réglé leen ñi sëy ak ña sëy seeg ñëpp dañ ko wara a dund réglé leen moy cëru yaay yaay mbeugel cëru rakk rakk man nag sama rakk moom yàlla def na ni man man maa dul may rakk bu jigéen wala mag bu jigéen muy offensé sama soxna. ah baax na yaa ko fi yaa ko war a protéger. man déggoo li ma la wax koo xam ne amul ku dul man. waaw sama soxna bu sikkee ba fa sikk yam laa la wax nii sikk gi man ak moom la man naa ko bay bayal mais sama mag bu jigéen laa la wax moom dafay xam fu muy yem ak sa famille sa famille tamit xam fu ñu yem ak moom lenn mën nañ séq kafre teraanga yëpp waaye lépp lu jëm ci dugg duggante bi waaw moom it buñ ko joxee respect moom ku jigéen kii na delloo respect bi waaw nekkul sama jëkkër a ma fal rek dafay bay baylu di xale xalelu ci kaw mais ni jaanu ñaa ngóor mantu xam ku dem ak foddatu jëm ko loolu tamit mantu noppi noppiwu ma toogal toogu ma déglu déglu ma loolu moom góor gu ko amaale soxna mën nga ko baay mu dellu ci ay mbokkam ndax jigéen góor kàddoom la am mhm. noppil noppiwu ma nga wax ko sa jabar mu la duma yow moom doo ko may noppiloo ci àdduna euh, toogal toogu ma bu may génn mënu ma laa téye saa yi ma génnee nga génn njaga nag kook wax dëgg yàlla mook mook jëkkër ju bon a yam kenn du ko mu ñaale jabar jooju فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان منو ما لا يلف دوما لي دلوت ساي ويجور داج ما لا جوخون رك غير ما موت ليار تيو اي تي نجاكو نيدم ما شاء الله موكو استاذ ني ني ني وا موكو ني واخ سي تليفون بي ني واخ ني رك نجاغا دي خول بارفوا لي ني لك دافا باخ ندخ ادونا بي لي ما دون واخ ديمب سي كارما لي بور لا غيسو فيم تولني لو في لبلي بو خيه ديم سي lu raw traitement ba nga doon def sa jabar mag da nga koy dund te fii ku fi nekk ñaan nga yàlla am jëkkër kuy dund ci jamono ji rek ñaan nga yàlla ñu may la borom kër nga dem sëyi te ku ci nekk nag buñu lay fay bor la nga leboon sa jabar mag te buñu lay maanaam yow boo demee du njëkk yaa lay sonal waaye dëkkandoo yi sax ba maytul ñu bokk ci coono boobu nga dëkkee jooy ak di kalaame waaw nga dëkkee kon nag na ñuy xool li ñuy lepp ndax fay ba moo tax ndax fay ba boo ko lepp lee lu baax rek fay ba day daal di yomb ci yow mu woo 88 628 89 90 ngeen bës 2 88 628 28 28 ngeen bës 2 33 841 20 69 ngeen 2 pour suñu mbokk nekk bitim MD ku ñëw rek ñu daal di koy jël allah ci waxtaan wi njaga Mantu Mouhamed euh, fi nga dugg ci analyse bi allah yal na yàlla lafal leen cat mm, euh, déglul euh, bi jeeg bi di solo bay ñëw nefa njëkk ya di ko gaaral mm. baat bii ci ndax ñu ne jeeg njariñ jeeg jàmm ak njariñ njariñ am nga suñu jàmm am nga suñu njariñ moowu njariñ